exactement euh, ce qui s'est en man fi ma bëgg ñu ñëw ci mooy euh, ci li ñu wax ni Ousmane Sonko dafa am lu ñu ko aspergé. Mhm. ci otoom pompe ko ko. Mhm. ba moom mu dëggal ko moom personnellement. Mhm. Euh, Wali Fall wax na ko léegi am na kuñ ci waxoon ni moom moo ko def kooku. wax na li tax mu def ko te ci Pastef la bokk. mais wax na itam image boo xam ni dafa viral ñëpp gis ko. am loo xam ne ñu ngi koy pompé Ousmane Sonko. ci biir oto loolu yëpp wax na ko. ndax loolu buñ ci sukkandikoo. dinañ mën a gëm li nga xam ni wax nañ ko ni empoisonnement wala leneen am na ci. xam nga état nervosité ak tiitam moo lay permettre nga xam quel la le lu nit waxee surtout opposant mhm. bu opposant waxee état mu ànd ak dal Ousmane Sonko nee na dañ koo empoisonné nee na xamul luñ ko sotti lan la. xam na li mu wax dafa leer. Ah, may ma ma ñëw non no euh, maître ci dugg si foofu defal na ñaari séquence maître s'il vous plaît. ñaari séquence moo ci nekk. waaw nee nañ am na ko dugg sotti ko vinaigre. mais gis nga ko non. gis nañ ko mais moom est que loolu la wax. ah d'accord am na yeneen yoo xamante ni. médecins yi foog ñu toog wan la wax la ñi xam Ousmane Sonko dégg ko gis ko après set euh, affaire. Mhm. gis nañ ni mu diminuer mhm. te xam nañ Ousmane Sonko yéen. ragalu leen faalewu leen. Mhm. bay tricher. xam nga Ousmane Sonko c'est l'opposant boo xam ni faalewul Macky Sall. tout son temps à tricher. Mhm. c'est la réalité. état bu toll ni Macky Sall doole gi mu àndal. c'est le moo tax nelawu leen. il a il aurait honte de tricher faalewu leen. yaa ngi mer de. non mer amu ci. qu'est-ce qui se passe. Mhm. opposant nee na parce que dañ ko gis dañoo gis de d'élimination xam nga suñu réew mi dafa nekk benn sorte de. interland boo xam ni kenn xamul lan la. parce que dëkk boo xam ni un consortium de journalistes yu bitim réew ñoo daje. ni président Macky Sall de ci réewum Sénégal recruté nañ ku ñuy wax Tim George pour mu koy créer ay conte ci mhm. Facebook. Mhm. ci réseaux sociaux yi. ndakete ku saaga sëriñ ñu jiiñ ko Pastef ñëpp xam nañ ne Tim George tuddul Maroc tuddul Tunisie tuddul Finlande tuddul kenn Macky Sall la tudd. déggoo enquête de. foofu on n'a pas besoin de. oui ma consortium déglu ñu ne. méthode bi mu am. viralité bi mu àndal. saaga yi ni muy bari bu leen laaj kenn ñoom ñoo dem liggéey ak Team George. Macky Sall lu muy def ak Team George gàcce googu ñu am liggéeyul ak borom xam-xam ñoo xam ne mën nañ eh, ab ab ab jiw boo xam ne boo ci defee tuuti ndox mu jóg alal ji mu dem dépensé ji ko foofu loolu lañ war a lijjanti mhm. affaire docteur Niang bii docteur Niang woo nañ ko naam ci affaire bu Bamba il faut en profiter pour dire une chose journal L'Obs dafa bind ne il était en fuite. journal L'Obs bind na tey ni le docteur Cissé n'est pas inscrit sur le tableau de l'ordre oh, nee na nee na euh, enquêteurs yi saytu nañ ko nekk ci te boo tàppee internet nga fekk ko ci ñu ñu bind ko spécialité mag yépp mensonge ak manipulation yi pour lan ngeen koy def lan moo tax état di manipuler nopp su mu nii li mu def du diffusion de fausse nouvelle kan mooy topp nopp kenn du ko topp li mu bind su ko waa Pastef waxoon ñu ngi kaso ba le docteur Niang est en fuite le docteur Cissé euh, son nom te boo cliquer lo ordre des médecins nga fekk ci turam. non léegi loolu aussi dama la ciy leeralal tuuti. waaw journaliste bi bu fekkee dafa bind. Mhm. loo xam ne yow da nga jàpp ni loolu amul. waaw moom mën na ko rectifier boppam. waaw par exemple suba. waaw bu fekkee L'Obs dafa juum. waaw danaan damaa juum. waaw affaire bi day féete boor. du féete si non non bu nee damaa juum moom. bu nee damaa juum non bu nee damaa juum. waaw dafay féete boor affaire bi tudd non non attends bu bu bu ñëwaat ci loolu. ah déedéet non non musul wax ah, li nga bëgg a nga j'espère dama ni non j'espère doo def loolu. non égalel s'il te si vous ci li nga doon nga gis ni manipulation. Mm-hmm. ci loolu médiatique la. Mm-hmm. léegi yow waa ji nee na da ngeen maa empo empoisonné ngeen empoisonné jiñul kenn. procureur dégguñu mu ubbi enquête dégguñu ko léegi nga convoqué ay médecins mais booy convoqué médecin respecter les procédures ordre des médecins du du da ngay jël médecin rek convoqué ko ne ko kan moo doon seet Ousmane Sonko loolu ça apporte quoi est-ce que da nga déggagum y a un rapport des spécialistes. Mhm. médecin yi seet Ousmane Sonko binduñu rapport binduñu certificat boo xam ne rendu dañ ko public Ousmane Sonko porté wul plainte mhm. lu tax procureur ni demal comme que yow yaa procureur loolu. procureur ni commissaire bi commissaire sàng rek. demal nga convoquer ma le personnel médical bu doon seet Ousmane Sonko. di leen poser des questions di leen poser ay questions sur. Ousmane Sonko lu mu def ak lu mu def. question bi mooy. def ngeen defu leen bu leen tiit man bu doon maay état xam nga état dafa simple. il y a un rapport. il y des examens. après dafa am lu ñuy wax contre expertise. fii Sénégal moom moom moom moom moom service yëpp moo leen commandé suñ ko indilee rapport buñ nee yëre Ousmane Sonko bii tissu bi ñu indil gis nañ ci poson danaa leen la delloo leen nëpp kii bi bu ko Sénégal mënu mu yóbbu ko contre expertise donc mënu rëcc d'accord léegi li ñu leen di laaj question bi mooy pourquoi ngeen tiit El Malick Ndiaye mi ngeen téye lu ngeen ci jublu mhm. maire Bilal Diatta lu ngeen ci jublu bi ngay toj loolu dinañ ci ñëw ci arrestation yooyu bi ngay toj buntu Ousmane Sonko verre takkul Mm-hmm. taxul lu nekk mënoon ma jël caabi bi ci ci kii bi yaa ngi ko bloqué ak 4 wala cinq wala vingt blindé oto mënul dem lan moo tax nga ñëw toj vitre ci ay bëtam li ngeen di def lenn la li ñu leen wax du dañ yéen a ngi attaqué Hannibal Djim ci financement daan ni dafay fi collecté xaalis boo xam ni pour daaneel Macky Sall la. yéen ku jóg ngeen di appel à l'insurrection merci daf leen di daaneel li ma bëgg a wax fii rek. pour finaliser ci ñii. Mm-hmm. le projet il est connu. Mm-hmm. Ousmane Sonko Pastef par A ou par B Macky Sall décidé na nee na. ou te fi ñu jëm léegi nii mooy ci dissolution yéen a ngi wut bunt fu ne jàpp ngeen Hannibal jàpp ni day financé ay terroristes tëj ngeen ko par express teg leen ay coono te bi ñu def collecte bi wéevan fi orange ak fi ngeen ciblé ko ndax jàpp ngeen ni moom mooy dimbale Pastef am xaalis yéen a ngi bàyyi ngeen cent personnes ci weeru koor ñu ngi fanaan tey kaso. tey plus de presque cent personnes ci weeru koor ngeen tëj leen du ñu sàcc ñu sàcc rapport des corps ñu ngi fanaan seen kër ci weeru koor ñu ne sa président là moom mooy défendre diine merci moom mooy def d'accord lii mooy seen bilan yéen da ngeen a dajeeg parti boo xam ne ragalul mhm. te la mobilisation bu yeboo ngeen jàpp ñëpp man lii di wax ak yow gis nga maa ngi fi ci plateau bi ñaata message laa jot ay Amadou booy ñibbi moytul ñu kar la ci yoon mhm. mais faale luñu te on vous combattra autant que nécessaire. d'accord merci alors euh, Waly li li nga li nga exemple bi nga joxe gis nañ ko ci vidéo bi mais li ñu ci jaaxal mooy euh, maître Ciré Clédor Ly dafa nekkoon ci oto bi. te ku ne xam na ni après euh, am na malaise ba dem na bitim réew ndax loolu itam nan nga ko mën a expliquer même bu fekkente ni da nga jàpp ni Ousmane ko kenn empoisonné wu ko kenn kenn pompe ko dara mais maître Ciré le avocat bi nga xam nekkal na noonu na ak moom. mais ku ne gis na malaise bi nga xam ne moom la génne Sénégal wutali bitim réew. waaw oh, Pape déjà ci maître Ciré Clédor Ly moom sama sama mag la et j'ai beaucoup de respect et de considération pour maître Ciré Clédor Ly ndax li muy représenté ci barreau Sénégal mm-hmm. te vraiment moom. avant muy dem. mais doo wax ni dafay manipuler aussi doo wax ni dafay. dafay dafay dugg ci yooyu quand même. non non xaaral rek. Mhm. xam wax respect ak considération bu ma am ci sama sama grand. Mhm. maître ba pare di di di di di wax loo xam ne aussi day day da koy salfaañe non dama ne maître moom avant muy dem ma muy dem ba léegi su ma jumul il n'a pas fait un commentaire sur son dossier médical. en fait sur sa situation médicale. waaw mais loolu amul lu mu ciy wax. waaw ku ñu yaroo Sénégal yóbbu France kay wax dëgg yàlla loolu kay. loolu lan nga wax bu amul woon dara kay bu jóge fii di dem. waaw ah, non non rek. waaw allez waaw. xam nga tey moom. Mhm. jóg na dem. Mhm. dugg avion dem France ne dafay saytu yaramam. waaw su mu juumul. Mhm. on a reçu un communiqué boo xam ne famille yu maître Ciré Clédor Ly moo nañ ko waaw moo ko publié. ba wax ne. maître n'a pas fait l'objet d'une évacuation sanitaire su ma jumul vraiment vraiment su ma jumul tout à mm-hmm. donc nit bu ne mais ñoom si wax nañ ay menance de mort yu ñu leen def ak yeneen wax nañ ko. non mais attends wax lii kay dañu ñëw expliqué. non attends attends mm-hmm. des menaces de mort c'est pas. waaw ah, d'accord waaw mm-hmm, d'accord non menace de mort du maladie. si mm-hmm. leen loolu kon ñun ñi dee nañu yàgg parce que on a tellement reçu de menaces mortes de la part de nos de nos et de de kon kon kon ñun tey dee nañu yàgg non menace du maladie. Mm-hmm. te vraiment je ne suis pas mm-hmm. que vraiment nit bu ànd ak xel. danga nga xëy ay commune médecine écologique vraiment nga koy menace mort menace mort kay soo koy soo koy féetale xam nañ fan lañ ko war a mën mais comme je dis vraiment c'est-à-dire maître jóge na fi dem France ne dafay seetu yaramam man xam laa mun ñaanal mu ñibbi si si jàmm ak yaram bu péex continuer liggéeyam. Mhm. en tant que avocat. Mhm. moom deful commentaire ci situation famille am la ñu wax ñëpp dégg nañ ko nangu nañ ko. Mhm. vraiment wute na ak wute na ak ñi nga xam ne. ils ont parlé d'empoisonnement ils ont parlé de liquide extrêmement toxique ils ont parlé de de malaise am na sax. des partisans qui on dit que Ousmane était mourant yëpp on a tout entendu ici tout ça on a entendu mais loolu on l'a pas entendu avec maître avec maître Ciré Clédor maintenant fa laa jëm euh, Pape euh, xam nga euh, nu mu tuuti encore je ne suis pas vraiment juriste mais quand même je suis am na lu ma jàng parce que man mii doo xayoo mhm. par rapport ak des comptes c'est une institution pour laquelle j'ai le plus grand respect ndax bokk naa si ñi Cour de comptes audité en 2003 yàgg na ça fait déjà vingt ans yooyu tam tey ba ma jógee ba ma jógee ci audit bi ci laa gën a am considération ak respect ci Cour des comptes ci laa gën a am considération ak respect ci Cour des comptes ma xam ne c'est une institution indispensable te ña fa nekk am nañ xaranteef te ils sont objectifs ci par rapport li ñuy def mais nit loo objectif loo am xarañtif la def liggéey ba def dañ koy encadré xam nga dégg naa sànq Amadou ne ñoom ce sont des magistrats aguerris je suis entièrement d'accord su fekkee nag ñoom dañuy def seen enquête def seen conclusion def seen recommandation donc keneen warul enquête ci ginnaaw mhm. kon yoon mënul na leen may <laughs> que ñoom suñ paree ñu ne Wally mii dóor leen ko cinq ans parce que jàpp nañ ne que dafa dafa dafa luubal un million damay jox exemple. PAM ngañ mi dóor leen ko trois mois parce que dafa mel ni que facture bi mu indi baaxul mais comme loolu la yoon santaan cest à yow da ngay def soo defee nag da ngay jébbal ki ñuy wax le maître des poursuites waaye nag procureur nag kenn du ko jébbal dara ba pare ne ko amul benn policier bi def enquête ah ci ci ci man ci man li ma yaakaar rek. policier policier de officier de police judiciaire quelle que soit la gravité de l'acte mu ne conclure nag procureur dama lay dama lay jébbal jébbal euh, euh, Bassirou Ngom kii moom dañ ko war a tëj dix ans. ka koy tëj ak li ñu ko a tëj def ci procureur dépendre ak juge ba nga xam ne mooy jugé donc moi je crois que il faut pas aussi que ñuy ñuy vraiment jaxase xelu xelu nit ñi. la Cour des comptes a fait un très bon travail le président de la République en conseil des ministres a donné des instructions qui sont en train d'être d'être appliquées ñi nga xam ne tey ñoom la ñu tuumaal. mais ce sont des sénégalais am nañu aussi leur dignité nañ la may ñoom tamit fa ñu war a jaar pour seetal seen der ñu ñoom tamit ñu set seen seen der donc je je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit être vraiment dans euh, dans dans une chasse à l'homme boo xam ne amul fenn fu ñu ko wekk fi may euh, euh, fi may daanelee merci. saa yi mi ngi indi ay tuuma di ko tagaat ci ñi féetewoo ci nguur gi parce que nee na. Euh, on a on a recruté xam nga kan boo xam ne kon képp ku fiy saaga tey kilifa diine rek nañ jàpp ne vraiment ci waa APR ak waa benn bokk yaakaar la jàpp loolu da xanaa vraiment ñi ngi seetaan moom il faut ils faut se poser la question est-ce que est-ce que ñun ñooy Pastef te moom mooy moom mooy kon kon moom mooy benn bokk yaakaar ak APR ndax ñi gën a ràññeeku à visage découvert waxuma sax ñu làqu de di saaga sëriñ si suba ak ngoon ba xalif généraux yi dox ne maa ngi wax waaye xam naa su ma su may daaneel ñu ñu may saaga waaye yàlla baax na loolu aussi on l'a jamais vu au Sénégal nit taxaw ne Ousmane Sonko laa àndal bakkanu Ousmane Sonko moo ma gënal bakkanu xalif général ñu ngi koy soog a dégg Sénégal et maintenant coow la yow dëgg am na nit ñu commencé jóg di wax ah pourquoi kilifa diine yi waxuñu biñ demee ba ta ba ba essayé. jéem a buux indi violence indi défiance état bi teg leen doole état parce que ñun ñëpp dañu yàlla état am doole ku fi nekk ku fi nekkul parce que nguur day jeex ñi commencé ah lu tax kilifa diine di wax ba su nekk ñu ba ñu saaga leen à longueur de journée ba finalement sax on se substitue aujourd'hui au marabout di joxe ay ndigal. lu tax ñu gagné leen cité religieuse yëpp dans les élections locales ak législatives. di joxe ay ndigal léegi. xam nga. lu tax ñu gagné le manque de respect dans les cités religieuses non le manque de respect. di wax ne man samay militant yi ay ta di jox ndigal. mooy que ne sax je me substitue à l'autorité je me substitue à l'autorité maintenant des chefs religieux. loolu ñu ngi koy soog a Sénégal. waxoo ci waxoo wax ji de. lu tax ñu gagné les cités religieuses non ba pare aujourd'hui parce que parce que parce que parce que Amadou. il est pernicieux il est extrêmement grave. Ah. il est extrêmement dangereux. parce que su ma bàyyi loolu il mun na yaakaar ne mun dugg ci xelu Sénégal yi ne ñay saaga sëriñ si. Hmm. waa benn bokk yaakaar ak waa ak. ak disons waa ak ñooy bokk pourquoi ñu tudd loolu mooy seen carte d'identité cest ñu nee carte d'identité waa Pastef mooy kooku ñu saaga la. la la culture de la peur <laughs> malheureusement ñun ba ñu judd bay xeex juddoo ko Pape doo ko laaj ñu perte élection législative yi dans les religieuses non non dama ne. pourquoi vous avez perdu les élections législatives dans les cités. waaw neexee ngeen gagné élection au Sénégal yëpp. Hmm. mais ñi saaga kilifa diine yi yéen la. te ñoo gagné foofu. da ah mais d' accord tant mieux ah bon. kon yow kon kon pour yow malgré que ngeen saaga kilifa diine yi kon yéen da ngeen ca dans les sites religieux yéen a gagné. mais les gens vont apprécier. yow foofu loolu nga dese. les gens vont apprécier d'accord donc daal li nga nga foofu s'il vous plaît parce que émission bi jeex na. absolument après ñu daal di. Euh, fi may jeexale mhm. xaw ndax dina amat euh, un mais xam naa ci sa tàggoo lay doon. ci sa tàggoo waaw mais bu fekkee mën nga ko terminer nga. terminer ko s'il vous ah, d'accord non c'est que fi may fi may fi may fi may jeexale. Mhm. wax ci bëri ku nekk yaa ngi xëcc sa bor. mais li si am solo yëpp mooy nañu bàyyi xel askan bi. d'accord ok rawatina. Mhm. rawatina ñi nga xam ne tey dañoo ñàkk seen doom xam nga sànq mi wax y a 14 morts. Mhm. na ma ne su ma ko laajee 3 morts 3 morts de morts yi am en en 2021 du ma ko wax. Mhm. fàtt nañ leen bu yàgg. fàtt <laughs> fàtt nañ bu yàgg ñooñu ak ñi nga xam ne tey ñoo ñàkk seen bakkan ci ci fii ñun les politiciens. de quelque bord que ce soit amoon nañ leen àq parce que nag la vérité est que dans ce pays là nekk homme politique joxu la immunité joxu la kiirlaay boo xam ne. ak wàll boo féete. ak ak bien sûr vraiment ak ak aussi. ak aussi ak aussi te dama jeexe rek dama jeexe rek di yeesal sama njaal parce que vraiment dama ko waroon tàmbale te bu ñuy wax laa ko war a tàmbale mhm. di yeesal sama njaal ci sunu benn euh, membre de benn bokk yaakaar. nekk suñu mag suñu suñu frère te yàlla jël ko fi muy maître Ousmane Seye vraiment may jaale njabootam di jaale ay proches mais di jaale aussi tamit sama beneen frère bokkuñu sax ci fi ñu bokk ci wàllu politique mu nekk taxawu Sénégal muy le maire aussi Pala Samb vraiment doon sama sama xarit doon sama sama. am di jàmm waaw ñu koy jaale aussi waa waa Point di ko jaale waa Dakar. di ko jaale aussi tamit le frère Khalifa Ababacar Sall. Mhm. jërëjëf alors euh, madame Fatou Blondin Diop ci loolu la ñuy des ba tey.